kep kuy setan site bi igfm.sn di len euh, di len remercier ci ñew bi gene ñëw fi seet si di ci am contenté bu baax a baax d'accord donc euh, yow moom euh, c'est vrai que idol euh, idol mi ngi nekk ci ultime saison comme ni ko dafa waxee woon sànq et tout mais dañuy ñëw commencé ci infidèle bi nga xamante ni moom instant yi nii moom moo la nit yi di gën a seetaan jox ko bopp muy def buzz donc nan nga def ba nga intégré série bi. waaw nekkul woon loo xam ni dafa jafe parce que comme jotoon naa liggéey ak waa kër gi muy waa event Prod ci idol comme ni nga ko waxee donc à un moment donné je me voyager donc Infidel, infidèle je suis presque ci 20e épisode je sais pas ou wala 21, je wala wala voyage donc je la contacté. contacter après wan ma scénario bi wan ma rôle bi ñu waxtaan ci là, infidèle ok donc voyage dans la vraie vie après nga intégré. après infidèle

lolu comme bo xolé dafa nek maa ngi ciy di représenter comme ben askan lebu ñun lebu sama bàjjeen xam nga bëgg lolu mo nekkon sama rêve tak xalé bo xamanteni ni xamul dara donc bo xolé ci film bi maa ngi wone ni lolu mo waral ni sax mariewuma fi ma ñew fi tak sama mbokku di wut jigen bu baax bo xamni sax xel day dal mu doon sa mbokku nga jaar ci aada yi laban def yëpp dal donc far yàlla nattu ma ma dal ci loolu noonu donc mu nekk loo xamante ni mën nga ne benn rêve la boo xamante ni yaa ngi ko doon waaje kii mu mu mu brisé donc foofu aussi mu nekk ay jàngale yoo xamante ni yu yaatu la ñu ci wanewaale nii jigéen war na doon koo xamante ni kuy sàmm boppam sàmm ndawam xam nga parce que mooy doon ndamam ëllëg boobu jàngale boobu lañ ci doon bëgg a wanewaale daal donc mon euh, euh, nekkoon ben leçon boo xamante ne dañu ko doon euh, joxe pour les jeunes filles de notre génération mm. mais je veux dire est-ce que tey jii nii femme bi nga xamante que vierge dafa un bon wala déedéet warul bon mais xam nga parce que je veux dire que virginité est-ce que loolu mooy définir ne que qui c'est une femme vertueuse une femme boo à maintenir? xam nga tey jii góor yàlla bu nekk ci ci ci àdduna boo sañoon jabar bi ngay am hmm? day da ngay nekk ki nga xamante ni yaa koy xamal lépp wala yaa jiitu ci moom n'est-ce pas parce que ñun ay ñun dañu nekk ci ci ci dëkk boo xamante ni xam nga dañu ay dafa am ay diine xam nga donc nekkul nag ku erreur daal ba nga pett ko rek ku bon nga parce que nit mën na mun na bon baax mais bu ñuy jàngale aussi il faut ñu wane ni jigéen war na góor góorlu ba sàmm li nga xamante ni mooy mooy lii ko yàlla jox ba mu bañ ko ñaké ci parce que bu ko ñaké mën ko jural ay conséquences yu yu melni mais téwul tamit ku mu dal parce que nit dara mëna la dal ci erreur waye taxul nga bon nit mëna bon ba jëmi jamono mu bax nit mëna bax it ba jëmi jamono mu bon parce que mën nga tak sa jaba tay ji jël ko muy ndaw yow rek la xam mu bax lool mu dem ba ci digg bi ngeen di sey mu commencé moy di ndialo donc lool yépp mi ngi ci mais dal da ngay wan nit ñi ni jigéen fi bu bax fi la wara jaar suñu aada ak suñu cosaan suñu cosaan. d'accord bu ñu ñëwee ci aada ak cosaan aussi est-ce que jigéen rek moo war a téye boppam ba sëy. déedéet. yow miy laaj jigéen boobu noonu nag téye boppam est-ce que yow mi ñëw di ko xamal téye nga sa bopp. mën na nekk am na fi ay góor yoo xamante ni dañ téye seen bopp. yow gis nga ko teg nga sa bët. mais bari na. ci série bi noonu nga meloon. ci série bi noonu laa mel. <laughs> d'accord donc euh, série bi mu am ay polémiques yu yu bari. bëri euh, donc euh, voilà ñu nek am na ñoo xamante ne ñu ngi koy critiquer et tout ça mm. yéen critiques yi nga xamantene ne nek au devant de la scène diko ko jouer nan ngeen koy dundé. bon man dama né damay wax toujours né euh cinéma ak ak critique ñoo ñoo ñoo and. kuy def cinéma il faut que nga accepter critique mais. c'est ba pare Sénégal mo baaxoo des fois dañuy ñu bëri dañuy critiquer topp ci wax ji rek karema. duñu comprendre carrément carrément carrément. Sénégal moo nekk dëkk boo xam ni gars yi dañuy des fois dañuy topp wax ji rek te des fois duñu kii parce que boo xoolee infidèle critique bi bari na mais àdduna ñaar la baax ak bon moo fi nekk. dañ lay won ñu baax ñi comme question bi nga wax léegi gis nga njàngale bi fi nekk noonu yëpp ñi baax ñee ngi ngi ñi bon ñi jël voix la mel. donc yow yaay xool yoonu baax baa ngi nii yoonu bon baa ngi nii donc am na noo koy noo koy seetaanee di nga xam ne infidèle bii kat am na jàngale bu bari dina wane yoon bu baax bi ñii ñoo baax ñii ñoo bon donc nag boo bëggee jàngale mënoo fi wane ñu baax ñi rek te boo génnee ci mbedd mi yow di nga gis ku baax gis ku bon ok et quoi qu'on puisse dire euh, série bi que na loo xamante ne dafay euh, refléter la société sénégalaise donc euh, ñu ñëw ci Goudiaby bi nga xamante mon moo ci série Idole donc nan nga intégré série bi ba nga glissé wu ci po Goudiaby nekk li nga xamante ne journaliste. Idole nag bi mu kiiyee dañ casting après ma xamoon mère maman bi nga xamante mon moom ne nekkoon pas def script ak donc euh, gars yi bi ñu ma bi proposé gars yi contacté ma bi ma ma def casting bi ma ñëwee ñu jël ma ci noonu jox ma scénario bi expliqué ma ni ma bon journaliste sportif la na expliqué ma ma commencé noonu ñu waxtaan ci laa commencé donc euh, awma ci benn problème après parce que ñi ma fa fekkoon yëpp aussi ay presque ay professionnel rek la fa fekkone xam nga té liggéey ño xamanténi ay professionnel la du xawa du xawa jafé xam nga parce que dañ lay tek toujours ci yoon quoi. ok mais mu nekkoon euh, nit yi fofu lañ la découvrir hein, quand hmm. même donc euh, est-ce que début bi euh, yomboon côté texte côté jàkkaarloo caméra. jafewul won ci man parce que medina laa deuk donc ba paré dama defoon théâtre defoon jotoon naa def théâtre xam nga def dëkkoon ci ay troupe répété xam nga def ay théâtre sur scène et tout donc bo dëkkee medina nek xalé parce que bo def bëri won ay troupe ay daare ko ci Médina xam nga. amoon nañu ay troupe yu bari ay pencum réew mii jataay askan bi ak xam nga dañ doon jouer ba pare dañ doon compétir ay nawetaanu théâtre donc di dem fu nekk xam nga donc di représenter sunu sunu ASC ak yooyu di jouer théâtre sur scène donc teeloon nañu miin aussi ay caméra quoi ak yooyu noonu doon def tournage yi dañ daan taxale ci troupe bi temps yooyu organiser ay soire xam nga dajale xaalis bi bu ñu demee fay benn caméraman xam nga mu jël ñu du sax génn xam nga <laughs> mais. <laughs> <laughs> dund ci lu metti xam nga mais bon loolu mooy expérience bi xam nga nank nank nank nank boo mooy loolu quoi moo tax xawoon nañu am tuuti kii quoi nekkuñu ci woon bëla à 100 pour cent d'accord euh, donc est-ce que yomboon na tamit euh, nekk li nga xamante ne mooy journaliste dem reportage ñëw incarné li nga xamante ni euh, côté boobu aussi am naa ci benn chance parce que dama mës a liggéey ci benn rédaction donc di ko gisoon naa journaliste yi ni ñu doon demee di ñëw xam nga dem reportage yi ñëw xam nga ku nekk bind sa texte guddi gi bouclé xam nga donc gisoon naa loolu donc bi ñu ma joxee loolu. donc voilà. mu yomb mu xaw a yomb am na benn journaliste sax boo xam ne dama ko daan tooñ naan ko turu turu joolaa bi yow yaa tax ma jël ko pour pour ko la quoi. Euh, lan moo la gënoon marqué euh, ci euh, saison durant toutes les saisons yoo xamante ne peut-être ko. 1 bi ba 8 bi. ba 8 bi bon xanaa sama duyoo man ak man ak Tafa ak peut-être ak Seck donc parce que bu bi may ñëw donc loolu kiiwuma ko woon quoi parce que bu ma xoolee toujours dama koy dama naan Tafa sunu sama première euh, que séquence man ak moom dafa ñëw rek rek bomb donc xam nga ci ngay xam ni kon yàlla kii la la la la la la peerool quoi.

de me sentir lo xamanteni gis na ay artistes sax yoo xamante ni tey duñu am lolu donc mu nek yo xamne lu mu marque ba jouer ak mom mën nga ñu baña bindal texte man Tafa ak Seck limay wax gaay xam nañ ko mën nañ mën nga samp caméra yi rek ñu jouer soxla soxlawul texte. d'accord donc euh, dernière saison bi ni nan nga koy euh, dundé mu nek euh, ultime saison comme niñ ko waxé non mais ultime saison bi dafa fekk niveau yi gëna kawé gëna gën gaay gëna gars yi gën saay saay gën bandi xam nga. <laughs> <laughs> motax gaay dañuy wax ultime saison mais ragal naani sénégalais dañ ñaan parce que ultime saison bi moy li ma la wax gaay dafa gëna doy war té xam nga idole dafa nek lo xamanteni sénégalais yi ñoko bëgg ba paré idole dafa melni dafa melni ñun suñu dund quoi dafa melni xawma na ma la ko mëna expliquer quoi idole dafa melni dafa dëggu dal dafa dëggu ba boy boy gisee acteur yi bu ñu joué da ngay melni da nga nek ci ci réalité ñu dañ mel ni kuy nek ci dëgg dal motax ultime saison bi nar na torop torop torop torop torop torop nañ xaar asaka ngeen ñëwaat gëna bombaat indi yeneen. non moy gëna bombu moy gëna bombu ñaari junni yoon te di nga ñëwaat seet suñu xam ni mooy gën a bomb. lan moy say projet. xaalis bi bari xaalis bi bari na déjà yow yaangi voyager di ñëw dem rek moom la woyé nak mané tay ngay atterrir nga ñëw rek. ma jàkkaarloo bul <laughs> allah alors. <laughs> ñi ngi sante xam nga di ñaan yalla rek xam nga cinéma bi Sénégal dama koy wax chaque jour day fa da ngay dox dajeeg nit ci mbedd bi mu ne la wéy sen art bi mi ngi fay ama Sénégal dafa tom taamu lolu quoi sen art bi mi ngi fay dafa am bëtt bi ñuy xolé ki quoi mu ne la liggéey bi ngay liggéey yow mi ngi dox Sénégal dara doxu fi. dara doxu peut-être amna secteur yu dox. fi dara doxu fi. jënd beeg jaay bi fo tourné nit yaangi jaay. bu ñëpp di jaay kay nga xamni dara doxul. <laughs> ñu nekk ñi ci bureau bi sax ñi nekk ci bureau yi sax dañuy jaay <laughs> sekk gi lu ne lay estati lu ne lay lay jaay moo lay wan ni dara doxul donc xam nga dëkk bi moo demee noonu li ñuy ñaan rek mooy gars yi surtout gouvernement bi ñu ñuy jàppale secteur yi nga xamante ni ndaw yi dañ ci dañ ciy yëngu parce que boo xoolee euh, cinéma bi actuellement Sénégal am na yokkute que nga nangu ko wala nga bañ ko na gaa yi xaw a wàcc cravate yeeg wesh-wesh gi intellectuel yu forox yi xam nga jàppale gaa yi xam nga terrain bi jàppale jeunes yi gis nga yow bu bu série di daw muy muy infidèle muy idole muy beneen bu beneen beneen production Pod et Marichou wala keneen wala yeneen. mais est-ce que saturé wul ñëpp ay def série. non mais saturé yu baax produit yu baax yi gars yi xam nañ ko am na série yoo xam ne buy daw nii boo génnee ci mbedd mi doo gis nit man am na jour yi ma doon liggéey di wàcc wala ma dem damay xam ne jour bi épi série bii mooy daw. parce que do gis mo adama ci mbedd mi ben xalé do ko gis donc loolu dafa am njëriñ man suma musa ñew sama dem sama kër maam suma ma fek kër gi na tek damay xamni seri moy daw. donc ban seri moy daw sa kër maam. <laughs> mais idol moy daw da ngay xamni idol moy daw. <laughs> non pas ñepp quoi parce que gaay yep ay ñi ngi ngi def ay production yu jambaré mi ngi nice mi ngi yokku té affaire bi développé wul ni mu wara développé parce que manké na jappalé te munoo da xool kër gu mel ni Evenprod euh, boo xoolee idole mun nga compter ñaata personnage ñoo ci nekkoon di liggéey hmm? infidèle ñaata mœurs hmm? ñaata yeneen ak yeneen production ñaata ñaata doomu aadama ñoo xamante ni ñu ngi ci jariñu di yóbbu seen njaboot di lii donc secteur la boo xamante ni état bi war na ci mën a def. mais am nga li nga may posé yéen a nii xam nga ni amul xaalis. <laughs> yéen nga koy gis. cinéma bi war na mën a yokku. gars yi jàppale leen yaa ngi dégg yokk affaire yi parce que luy defar la mais tey jii da ngay gis sax kuraan la boo amee boo demal nga wuti beneen métier bu mën te pourtant bi war nga ci mënoon jàpp. liggéey ci mu jox la métier. mais léegi ñëpp ñu ngi bëgg ñëw def si art journaliste yi ñu ngi ñëw di di jouer ñëpp a ngi nekk bëgg nga nekk acteur. waaw c'est que da nga nekk ci dëkk boo xamante ni aussi même kilifa yi ko jiite ñu baal ma mais dañu bëgg buzz. té pour nga am buzz foofu mo gëné a. pour nga bëgg lool rek wala nga taxaw ci net bi nii rek ci secteur yi buzz moo waral dëkk bi da ngay tok xol gor bu gor bo xamni day liggéey di daan dolem nga taxaw diko critiquer diko saga té te xamuloo ko bëgg buzz moy def loolu bëgg buzz moy taxaw wax lu du dëgg ci julit pour bëgg buzz ñu coow la chaque jour nga gis ko. ok donc tay yow ban message ngay lancer ci nga xamantene jeune yi melne yow euh, gis la ngay jouer ci série yi ñu bëgg ko mu nek sen passion ban message ngay leen di lancer tay soko beugé bëggee dama nga jangé ko. demal nga góor góorlu demal nga wuti parce que cinéma mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jëm kanam demal nga jéem a yokk nga jàng yaa ngi dégg nga góor góorlu te bu mu la yàqal sa benn jàng boo nekkee xale jàngil xam nga mun nga ko booleeg moom wuti liggéey boole kook moom. d'accord ah. maa ngi am kontante di la gërëm ci seetsi bi nga ñu seetsi xam nga. di la sant bu baax a baax a baax di la gërëm bu baax a baax di nuyu sama mbokk artistes yëpp di nuyu waa Evenprod ni nga xam ne ñoom laay liggéeyal di remercier aussi grand Ibou Guèye ci ci ci confiance bi et mu nekk nit koo xamante ni nit ku baax la xam nga man maay sëriñam quoi sama taalibe la mais temps dafa ko comme ma ko seexal rek mu yëg boppam. après kon nga seexal ma. <laughs> yow du ma la seexal jërëjëf soxna si. <laughs> ok internet eh, IGF ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag eh, ki nga xamante ni eh, mooy Goudiaby bi di leen jox dig daje ba beneen ak keneen merci beaucoup.